Amis téléspectateurs, amis internautes, yu Teranga Sénégal TV dal ak Jam, tay ñu ngi académie de football bu ñu UST UST bu ngeen ko Union Sportive Thiessoise nek fi à Thiès un centre de vie wala siège social nek quartier Tchali, tout juste bu ngeen weesoo monument affilié au niveau de la ligue régionale des caisses, Nous avons target ay catégorie yu bari tek len ci conditions optimales ngir réaliser ses rêves à travers leur passion té football Biñu fi ñëwé tay li fi impressionné modi yar ak teggin ci yi itam dotation ci équipement sportif doon li football moderne bi laaj ngir ndaw yi mën a sentir seen bopp ci wàllu professionnalisme bokk na ci itam ay formateur yu seen xel màcc ci wàllu tàggat ndaw ngir mu mën a doon dara ëllëg UST di académie bu nga xamante ne benn ancien footballeur bu marqué woon jamonoom ràññeek woon lool moo ko solal mbubu bu bees nekk ci bopp bi jamono ji ñu koy wax Domitien Zalé Domitien Zalé moom moomee ànd ci ak ñu mu war a àndal ngir dimbali xale yi suba ñu mën a produire ay fitur futur talent ginnaw bi nga xamantene le doyen Habib Diouf mom mo nek membre fondateur bu UST e and ci ak ñi ci andalon lepp jox ko domicien Zale tay gi mom mo nek président bi nek sax propriétaire bu bile académie ci saison wu bi bu ñu ñëwee ci seen ay performance union sportive thiessoise defna résultat yu mucc ayib ci compétition yi am fi ci dëkk bi ci différentes catégories bi ci mujj modi ndaw yi seeni at tolloogul ci fukki at ak juróom ñu leen di wax catégorie minime A wala U15 daal di gagné bi ngeen gis ci qui ay morom tax ak ñi mu nekkal ci centre bi di woote tey ne dafay delloo njukkal entraîneur formateur qui nekk defal honneur ndaw yi nekk itam ci seeni kanam ay waajur ak seeni ay mbokk tey ci suba de démonstration ak ko ak ay opposition lañu fa doon amal la Sénégal TV spécial UST dina ak quelques réactions ak temps fort alors euh, amis téléspectateurs amis internautes de TSTV comme nous l'avons dit tout à l'heure c'est introduction donc nous ngi fait une euh, ci cérémonie bi nga xamante ni waa USC sportive ñoo ko wane euh, union sportive thiessoise bu Domitien Zale alors nous ñu ngi kenn ak ci parents vie. vie mu nekk sunu doyen Mohamed Georges Bass Hein, nekk tey honneur ñu jàkkaarloo ak yow puisque le nom Bass nous ko ça nous rappelle Soleiman Bass ah oui Soleiman Bass l'international espoir qui a eu à remporter euh, le tournoi de IFOA U20 euh, également, euh, champion d'Afrique avec une chance U20. Son papa est là, Soleiman Bass, ancien passionnaire de Génération Foot, qui a récemment signé à Valenciennes en Ligue 2 française. Donc papa am l'a taxawal tey mu nekk parent d'élève qui fi nga xamante mon moom UST mu ñëw à notre grande surprise ñu fay confiance. alors góor gi Bass ñu ngi lay nuyu. suis leen di fay leen di nuyu tamit di leen nuyu télévision TSTV di leen euh, remercier si opportunité bi mu ngeen ma jox ni bon dama ñëw rek tombé yéen fii mais ngeen jox ma benn opportunité bi aussi tamit pour moo wax ak euh, la population thiessoise sama doom aussi tamit moo fi nekk muy Ibrahima Bass nekk euh, pensionnaire si école bi comme son frère il veut aussi tamit suivre les pas de son de son grand frère muy Souleymane Souleymane Bass son frère léegi xam naa aussi tamit bon depuis tout enfant moom il aime le football motax bon tay mën mo won dañuy fêter sen euh, coupe bu nous remporter ma ko toutes mes occupations dina ko bàyyi pour ñëw ëppale la parce que xalé mom luma bëgg rek da nga ko ci jappalé wa lolo waron ma teew fi tay alors monsieur Domitien Zale nek euh, propriétaire propriétaire au centre bi ah di ci def liggéey bu mucc ayib di si décarcassé wu avec des moyens de bord rien que pour euh, préparer des futurs talents tay un mot à l'endroit à monsieur Zale bi nga xamantene mom mo taxawal lu ni ma Zale mom dañ koy gërëm diko remercier remerciement bu amul app parce que déjà c'est un jeune papa ñepp xamé non ko fi ci gox bi ci affaire football. mais ñun aussi tamit fierté la ba mu jógee fii ñëw installé lu mel nii parce que des fois décor bu mel nii moo doon manqué xale yi doom na am ay talan mais nu mu leen teel former nii loolu motivation la pour xale yi. dina tax xale yi aussi tamit gën a am euh, yenn atu yi nga xam ne ni bu ñu demee en Europe du ñu am yenn difficulté yi bon doo dañ koy remercier parce que mënoon na jël xaalisam investir ko si leneen wala mu def ko si feneen mais bu jëlee alalam yëpp. jël temps am yëpp ñëw di si investir si ay xale di dundalaat gox bi ñun dañ koy remercier si affaire boobu bon Dominique dañ koy remercier bu baax a baax a baax a baax di rafetlu acte bu mu def nii parce que yombul daal. di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wër ak wër la rek ba fu mu bëgg a yegg mu yegg fa si jàmm ak salaam. voilà donc euh, mu nekk loo xamante ni euh, en tout cas kaddu yi mu la woon euh, ñàkk tey wax naa ko léegi nga nekk la papa de Souleymane Basse ñu gën ko xam ci Pastore récemment mu signé Valenciennes du ñàkk nag donc un mot par rapport ak nouvelle boobu nga xamante ni il fait la fête de Thiès waaw bon di ko ñaanal rek yàlla may ko wër gi yaram ak wër ak wër parce que déjà si wër gi yaram si la lépp xaj. Je remercier aussi la confiance bu ay coach et la population thiessoise yëpp franchement je remercie maa ngi leen di remercier ñaanal dans le monde du football je yóbbu ko la fierté de toute la population thiessoise et plus particulièrement la population du Sénégal Je vous remercie. di voilà donc euh, mu nekkoon euh, Mohamed Georges Bache nekk euh, le papa de Souleymane Basse Pastore nekk également parent d'élèves qui centre bi nga xamante ne union sportive thiessoise on va pas tarder dañuy jël keneen qui parent d'élèves élèves yi waaye ba tey tamit ki nga xamante ni monument football au niveau du département de Thiès nekk suñu doyen Habib Diouf hein, nekk l'initiateur initiateur sax ko ah, du centre UST nga xamante ne bëri na ay jeunes talents tey yu au plan local ci ay loxoom la donc mu nekk ko nga xamante ni euh, dañuy wax ni euh, sañ nañu wax ni membre fondateur la ci union sportive thiessoise nekkoon fale au niveau de champs de euh, papa ji ñu ngi lay nuyu bu baax. di la dalal ci test TV tey ñu am mbégte fekk la ci cérémonie bi nga xamante ni Domicien woote na ko ñu fas yéene sargal xale yi nga xamante ni notamment ci biir catégorie la catégorie U15 dem nañ daal di remporter le trophée départemental tey ginnaaw bu ñu la nuyoo ñu bàyyi la nga nuyoo téléspectateurs yi ñu doogul jublu ci li nga xamante ni moom mooy événement bi donc euh, merci beaucoup euh, d'abord euh, nous voulons leen remercier aussi de leen gërëm di aussi qui visite bi ngeen def ñëw ci sous siège vraiment pour voir exactement comme li nga aujourd'hui objectif B. c'était ça xale yi dañu bon pas la coupe départementale mais la coupe zonale parce que sur zone ils sont sortis ils sont sortis premiers ils ont remporté le trophée nous avons les meilleurs buteurs, les meilleurs gardiens, et puis on a presque tout raflé dans la zone. Section individuelle, dans la zone. Le jeune qui a marqué, on a, eu, on a marqué 25 buts en, championnat, 25 buts. Le meilleur buteur, Dougal, 15 buts. Hein. il est tout jeune, euh, Baïzal Mifi. Voilà, c'est ça. Donc, euh, effectivement, bon, ne euh, fais pas de, bon, Je suis le fondateur de l'UST. Voilà. Bon, on a existé pendant des années bon ont bon vraiment nous vraiment ils ont fait leur ABC ici bien avant l'UST d'abord il y avait avant le Ladjor et puis tout ça hein, mais après finalement je me dis que bon il faut partir tout seul créer sa sa école de foot après euh, créer l'UST bon juste après lui il est venu sais que le club de Fahou Metti. dafa xaw finalement euh, problème de moyens. voilà très bien le problème le problème de moyens s'est posé. et lui il est venu avec ses moyens il vraiment euh, vraiment bugna, vraiment créer une académie créer une académie. bon vraiment Je ma sais pour je ne vraiment mën naa koo ku ma il a pas projet il a porté le projet. parfait tout seul donc pratiquement tout ce que tu li tout le projet que ce soit sur le plan financier le, moment qu'on après il a ñu le, truc et on a fait euh, la, passation passation de man avec mon. voilà donc euh, il a son groupe le présent, bon c'est lui qui tout pratiquement voilà donc objectif c'est ça c'est devenir comme Jambar comme Génération Foot sinon même plus voilà le mot objectif voilà et là, moi, ça m'a beaucoup allégé aussi. Bon, parce qu'avec avec euh, l'âge maintenant, bon, avec tout ce que j'ai fait dans le foot, bon, je sais qu'il y a eu des problèmes avec le problème de moyens, comme on a de Mais vraiment pour vraiment, porter le projet. Vraiment, je crois qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, euh, et voilà bah. donc tay buñu défé defee lu ni mel euh, mu taxaw invité parents d'élèves yi ginnaaw saison bu ñi def ak distinction individuelle ya ko wax légui c'est pas évident ah ci académie yu nga xamante euh, bari way bi jéggi dayo dayoo au niveau de Thiès tey mu def performance nga xamante tay amna satisfaction wo parents yi invité leen gis nañ ko légui légui ci biir mu tok mu expliquer leen fi nga xam ne fa lay jaar ak xalé yi c'est pas évident tay li ci ëpp solo moy que ne xalé yi bo xolé ñom ñëpp c'est des élèves au-delà des études sport ils muy alterner les deux mu melni mom aussi tamit euh, amna na ci walu boobu parce que tamit c'est pas évident la dajala ay xalé ñuy def résultats yu bax sur le terrain Et également for nañ ci wayu que la quasi-totalité des enfants ñi ngi def de très bons résultats à l'école. oui oui et je crois que et, mais le sax d'ailleurs c'est euh, beaucoup na ci ci objectif c'est normal parce que Air bi ñu nekk actuellement euh, dañuy allier études et sport mom la allié mom dans la salle que tu vois un très très bon joueur n'est-ce pas de bu ndaw il fait des prouesses n'est-ce pas dans le foot et que à l'école bo ses notes il a de mauvaises notes c'est pas parce que c'est un mauvais élève non d'où c'est pas parce que c'est un mauvais élève mais c'est parce que tout simplement ma bi et il s'est beaucoup plus concentré sur ci football bi que sur que sur les études ñun nak mais dañu les deux et puis on les suit à l'école on les suit hein. dañuy dem ba ci sen école Hein? dañuy dem ba ci seen école yi waxtaan ak euh, waxtaan ak parents yi waxtaan ak maîtres yi et tout ça et puis on leur demande aussi les bulletins les bulletins de de semestre de trimestre et tout ça pour ñu xool est-ce que ñu ngi jàng wala dit et on est en contact direct aussi en connexion directe aussi avec les parents que koo xam ne n'est-ce pas jàngul amul résultat n'est-ce pas dañu koy signaler et tout de suite nous on le met à on le met euh, il est tout de suite au, euh, purgatoire donc euh, tu vois mu dem toog ba notes yi ñëwaat encore aujourd'hui fini ñu toll Lololo, c'est sport allier les deux parce qu'il n'est pas dit que euh, euh, la faute aujourd'hui de, plusieurs aujourd'hui aujourd'hui ils ont tout laissé euh, pour le foot dara football malheureusement ça n'a pas marché alors amuñu métier amuñu diplôme professionnel mhm. amuñu diplôme scolaire ils n'ont rien et le football n'a pas marché et voilà maintenant qu'est-ce qu'ils vont devenir maintenant ben, voilà, c'est ce qu'on voit. Ils sont nombreux maintenant, les Raman là. Et, beaucoup de footballeurs Raman ici, beaucoup de très bons footballeurs. Ah ah. Mais malheureusement, bon, le règlement est parce que euh, pas de diplôme. Ah, bien sûr, mais non, mais c'est obligatoire, c'est obligatoire. <laughs> c'est important et c'est obligatoire. Lolo Kokumo, Mota il faut vraiment que nous nous ci lolu en tout cas euh, avons chew un entretien spécial à la maison ñu gën a yaatal parce que yow ku ne xam na ni même bu dul formation bi ci euh, sport bi donc euh, li ngay activé wu bari donc dinañ la seet si du yag dara ñu sekk ak yow waxtaan ci nu mu gëna a ñu waxtaan ak yow ci patch yu bari bari encore une fois donc dañuy wax ni li ce euh, mérite la li yëpp liggéey bi yow la parce que à la base yow la woon ba tey Domicien ñëw porter projet bi nga xamante ni daf ko def rien que pour l'intérêt du football sénégalais particulièrement la jeunesse sénégalaise ñu mën ci bénéficier encore une fois merci beaucoup donc amis téléspectateurs amis internautes c'était notre doyen Habib Diouf nekk membre fondateur euh, bu euh, union sportive thiessoise donc tout juste après moom dañuy euh, dalal suñu benn jigen moom également tay dafa ñëwon ci fête bi nek parents d'élèves moom également ci Euh, biir centre bi ah ñu koy euh, am mbégte di la dalal euh, ci ci fi tey ñu fekk la tey fi nga xamante ne moom mooy ci cérémonie bu USTA bi tey ñu bëggoon nga wax ñu rek naka nga gisee centre bi initiative bi nga xamante ne Zale teg na ko ah, porte projet bi nga xam ne c'est pas du tout évident soxna si. centre bi daal ni ma ko gisee mooy centre bu baax la ndax depuis ma indi fii sama doom muy Amadou Niang depuis boobu ba léegi maa ngi ci gis sama bopp. dafa bëgg football bi te ñoom it yore nañ ko surtout tonton Habib ak euh, sama benn tonton bu tudd Ñoxor fay ñoom ñëpp ak euh, borom centre bi ñoom ñëpp jàpp nañ ci muy Amadou Niawa. donc sa doom depuis que mu nekk ci centre bi ba donc euh, mu mel euh, wax nañu ni sur le plan résultat ci école bi donc mi ngi gën a mu mel donc euh, encadrement bi mu fekk fii dal na xel maanaam ñi ngi saytu jàngam di ko jàngat di ci wàllu football. si ñi ngi saytu jàngam ndax moom jàngam mu ngi jël première deuxième yooyu lay jël école maam yaate bu nekk parce inte deux waa jàng bi ak football bi yëpp moom macha da ciy jël lu baax fu mu fubalee moom nga seetaan ko da ngay kontaan waaw. Euh, merci beaucoup chantan euh, ak ngërëm euh, ñeel na la ñu lay bu solo ami téléspectateur ami internaute de TSTV, TV tout juste après donc la dame que parent d'élève ci centre union sportive thiessoise

ñoo nekk fii au niveau de Union sportive thiessoise c'est parti. Maguette ah. euh, kañ nga ñëw ci centre bi. man daaw. daaw nga fi ñëw. ban catégorie. man U13. U13 très bien ban poste ngay tu milieu Militaire. milieu terrain. milieu genre militaire, terrain offensif wala défensif wala. offensif. ah offensif. milieu offensif. kon yow meneur de jeu nga. Ah. kan mooy sa idole ci football. man Modric ak Unai. nan nga duggee ci centre bi centre bi kan moo la andi da ngaa sa gaay euh, nga gis ne ñu dem entraînement nga topp leen wala say parents ñoo la fi andi noo def ba intégré centre bi daaw. Ah, sama benn boy bu nekkoon fii après ñuy mu wax ko après ma daal ñëw def test ma réussir. bi fi ñëwee ba léegi naka nga gisee nekkin bi fii sa xarit yi sa coéquipier yi sa coach yi tonton Zale ah, nga xamante ne il papa pour vous ah pour nan nan nan ngeen gisee fii nekkin bi fii neex na de. ah fii neex na kay mais moom des fois moom day tàngal moom waaye si ba ñëwee ba tey ñooy bokk sangu fii fanaan ñooy def lépp ñooy demandoo entraînement. sen loisir yu rafet ah. ah des fois du ngeen genn ci mbedd mi seen yeneen morom len xol nan ñu dañu bëgg ñew ci sen centre bi sen sen loisir yi équipement yi ñu len ni ramasser car bi ñew jël len yoy waaw ah, amna kay boy boy bari bëgg na ñew fi boy bari sax amna ay boy bari bëgg ñew yaa ngi jàng waaw ah. ban classe ngay def man déwén laay def troisième déwén ngay 3e ah euh, kon am nga moy ñu bax cette année ah passé très bien bonne continuation kuy say dol man Unay. ah Unay. <laughs> ñoo ko do grand maa lay nuyu. maa lay fay. le numéro 9. oui. noo tudd. Goumba euh ban poste ngay football. latéral gauche. ban catégorie. U15A. U15A kon yéen na gagné coupe bi. récemment. yaa ngi doon joué. déedéet. ah kay nga ñëw ci centre bi. depuis 4 ans. depuis 4 ans kon yaa ngi ci formation de ba alors vous fi ñëwé ba légui no gisee centre bi. neex na de moom. daan fi neex. affaire yeeg lépp loisir yeeg li ñu jox lépp. baax loisir yi rafet na. waaw loisir rafet na waaw. ak lan. ak yére yi ñu jox ak dàll yeeg saag yeeg yëpp loolu lépp baax na. maanaam fii bu ngeen fi nekkee comme ay pro quoi. waaw bu ngeen génnee ci mber mi seen morom yi di leen xool. waaw kay wax ni dañoo bëgg a ñëw ci centre bi. waaw alors yaa ngi jàng. maa ngi jàng kay. ban classe ngay def. déwén si si sixième. déwén si kon am nga entrée en sixième ren. toutes mes félicitations. Ah, merci. kan mooy sa idole ci football. Dimarco. ah Dimarco. Dimarco <laughs> lan nga gis ci moom. mën na centré mën na mën na li muy def lépp. lan mooy sa lan mooy sa point fort ci football. point fort. Hmm. ci lan nga gën a aay quoi. latéral. latéral booy joué latéral am na latéral yoo xam ne dañuy défensif benn ex centre du romb am latéral yoo xam ne dañuy dem romb benn latéral bi centre lan nga ci gën a mën. défensif. défensif maanaam kenn du jàll. jaajëf. <laughs> grand xanaa ah ça se voit de sa numéro 1 <laughs> terminal Mohamed Sen Mohamed Sen ah, ah ban catégorie ngay U13 ah U13 yaa ngi ci U13 oui euh ban classe ngay def C'est moi. C'est moi. C'est moi. CM2 kañ nga ñëw ci centre bi 2022 def naa 2 ans waaw hmm. bi nga fi ñëwee ba léegi nan nga gisee centre bi sa coéquipier yi sa coach yi ak waaw bi neex na lool te coach yi tamit ñoom ñu ñu war def yop ñun tamit ñi ngi tek ci yoon ñi ngi nangu règlement gi yop te ñi ngi sant tamit costo ak costu abi ak costo ak costu yop hmm. ya. alors eh, beneen bi ci top moy eh, jang mi ak football mi naka nga koy gérer mën nga gérer ñaar wa nan nga koy gérer. tey su ma ñëwee entraînement damay dem tok jang suma paré ma tay ci may kay dem na la tour entraînement jotaté ma ñëwaat entraînement dem jangat après ma dem jàngiwaat tamit. noonu très bien kan c'est seetloo ci En terre, teer hein? sa Terre. ah teer. teer bon courage. alors euh, tout juste dégg ngeen euh, suma gardien de but hein, li mu wax léegi damay jàllaat ci beneen pensionnaire bu union sportive thiessoise mais kii nag ah hein, kii nag euh, il est gambien hein, il est gambien donc il paraît que Moussa le tout ah moom nag dafa bëri fan ci centre bien, ah sama gars yi <laughs> tàccu Moussa s'il vous plaît. <laughs> donc donc à à l'USC à y a tout donc des fi ay Guinéens fi ay Maliens ah am y a tout hein. donc euh, Moussa euh, Gambia people alors maa ngi Moussa. cool. ah Vous ngi est mm. nga alors Je euh, nga ñëw ci centre vous man ok fi ba gars intégration bi Hein? nga ñëw dafa gars yi yow waaw centre bi moom baax na booy mu leen football am nañ talent waaw jaam rek fi nekk waaw. ban catégorie ngay joué. on a ban poste. latéral latéral dañuy tax Saal mais dégg nañu wolof dégg nañ tubaab latéral gauche ngay joué alors euh, ban catégorie. on a. U15 la nekk Euh, kan mooy sa idole ji. man Alphonso Davis. Hmm? Alphonso Davis. ok euh, lan nga gis ci moom lan moo la impressionné ci moom. waaw booy bi daa mën na football mën na yëpp daal man dama kaa gis bëgg ko sama bopp. so merci. thank you. <laughs>